ñu euh, wax ci euh, ponk bu mujj mu yëgle kaay li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf wax ju ñaaw ju nekk wax ju rëy ju nekk wax ju garaaw ju nekk dégg nañu ko ci tribunal bu ndakaaru démb bi ñuy àtte Adji Sarr ak Ousmane Sonko xalaas l'observateur nañu salas bi Adji Sarr taxawee tribunal jano ak juge bi doon ko wax li ko jotale Ousmane Sonko lu nekk yéenekaay bi nee nañu dégg nañu ko fa ay finition ki démarrage ba ci escale moom Adji Sarr bi nee nañu wax na juge bi xeeti massage yañ doon def ca salon bii di salon Sweet Beauté la ci xëtamu njëkk bi ñuy déglu li xewoon mbir yi dafa meloon nañu nekk ci film porno film X le quotidien ne ko X la woon Adji Sarr def na ay révélation yu garaaw ca kanamu baar ba wax na xeeti massage yi ñu doon defal clients yi ca salon Sweet Beauté nee na am na massage bu ñu naan intégral tonifiant am massage bu ñu naan nuuru massage am massage quatre mais nga xam ne ñaari xale yu jigéen ñooy tim client bi di commencé am na massage jacuzzi massage jacuzzi Adji Sarr nee na client bi day futtiku dugg ci jacuzzi bi ki ki koy massé moom it futtiku dugg ci bi amoon na fait beneen massage bu ñu naan massage savonnage mu ne boobilee massage da ngay ànd ak client bi dugg ak moom jàppale ko mu sangu li ci tribunal bu ndakaaru audience érotique la ko suur tudde yéenekaay bi nañu Adji wax na démb ni mu ne noone la ko président bu parti Pastef fi di Ousmane Sonko daan violé dem na bay tegal zis ni ko Ousmane Sonko daan sàkkoo ci ginnaaw Aïssata Ba di masseuse bu ñu woowoon démb tribunal ni ab témoigne suur soi nañu moom wax na ci kanamu baar bi ne bi Adji Sarr jëlee ndoxum Ousmane Sonko moom li mu jàppoon mooy Adji dafa bëggoon sëriñ ci Ousmane Sonko ko tàngoon waxoon teg ci ay déballage yu saltel Adji Sarr def démb journal Life moo ko bind ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne Adji Sarr yeggee na bi ñeenti yoon yi mu ne moom la ko Ousmane Sonko violé ak bu ci nekk ak ni mu demee du ca mën a yegg ndax du lees mën a wax ci rajo mbay télé ñett ñi séq coow li di Adji ak Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye ñoo ngi ci xët mu njëkk journalisé ko moom mi bind ne lu rëy rëy lañ doon nettali démb ca tribunal ba teg na Karim Diop l'observateur nee nañu wax na démb ne amul sikki sàkk ci na viol am na l'observateur gis nañ ne Ousmane Sonko fukki ati kaso mi ngi bi gis na ne mooy yot Ousmane Sonko enquête yéenekaay nañu procureur bi moo ne nañ ko ko tëj Ndeye Khady Ndiaye capitaine Touré Sidi Ahmed Mbaye ba ci gynéco bi di docteur Gaye ku ci nekk ci ñoom la nga wax démb ca kanamu baar ba mi ngi ci enquête yéenekaay mi ñu fàttali ne avocat yi doon défendre Ousmane Sonko ak avocat yi waroon a défendre Ndeye Khady Ndiaye ñoom ñëpp gedd audience démb bi li ñu def lii quotidien li muy laaj mooy ndax du Ndeye Khady Ndiaye ci jëmi boppam la saraxe Sud du quotidien nañu audience da coowal jii ci lañ leen war a defere Jim Kebe bu Pastef jàpp nañu ko Mati Sarr Niang ak Modou Ndiaye bu Bambey TV ñoom am nañu seen ñetteelu retour de parquet Serigne Saliou Gueye directeur de publication bu yéenekaay bii di yor yor libération nee nañu ma nga ñu garde à vue ndax tuumay outrage à magistrat ak usurpation de fonction ndax amul carte de presse buy wane ne journaliste la. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen itam sant leen ci àndandoo bi ak ñun rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h30 incha allah.